nekk ay sàmba alaar nekk ay sàmba sulaa baal ñun ñu leen pour loolu de te yéen ñi ngeen di may xaalis mu suñu leen votel ñi ngeen di may xaalis mu suñu leen taxaw bu ngeen duggee ci banlieue bi booy ñoo leen rey seen bopp di pour ngeen am dara léegi au retour bu ngeen amee banlieue bi moom pour ngeen ñëw fa sax problème la banlieue bi pour ngeen dugg sax problème la ministre de la jeunesse bi ñu fal bañ ko falee ba léegi est-ce que dugg na ci banlieue bi est-ce mës na teg tànkam ci banlieue bi man gisuma tànkam Dalifort bi ma dëkk wala picin wala Géejawaay gisuma ay Sacré-Cœur ak ay monument de la renaissance ak ñàkk fayda yooyu nekkuñ si yooyu de du ñooñu ñoo leen fal affaire jaay taar yooyu nekkuñ si yooyu de heureusement sax nguur gi six mois ci des te xam naa ni président bi di ñëwaat xalaatul daan day jëlaat ministre de la jeunesse yi ñàkk fayda yi di di leen jéem wutal dara xalaatuñ ko ñu bu leen ñu fontoo de bu leen ñu yeb de ëpp leen ñu si ndey ëpp leen ñu si baay te nag am nañu fu ñuy waxee nag lii nag avertissement bi la bu ñu ñëwaatee dina gën a xumb waaw si réew mi lañu dëkk dañuy wax ci réew mi ci réew mi lañu dëkk dañuy wax si réew mi génn di wane fépp fi métti mën nañ ko de comme ñëpp mën nañ ko de daa am fu garaaw fu ñu jëm gañee gu leen dara de mooma gu leen fi dara de donc il est temps ngeen respecter nit ñi il est temps ngeen respecter militants yi militants yi ñu ngi ci groupe whatsapp bi ñu ngi ci tiktok bi xoola booy nekk ci tiktok bi di live di défendre état booy dañ lay woo Kaliphone Kaliphone saa man yor ma connexion Kaliphone doo si jàpp ñu ngi dee te ñoom ñoo toog di leen xeexal gaa yi toog di leen di saaga gaa yi toog di leen di menace gars yi toog di leen di wax lu ne booy mu mënuñu ko am jamono jooju nga tourné gis benn ministre bu jël ay caga yóbbu di bàyyi jamono jooju nga gis ministre bu jël caga may ko terrain il faut que mu arrêté de sinon nag luy métti dina ñëw si yéen dañu wante dëgg fii moomu leen nit ñi de respecté leen nit ñi encore une fois respecté leen nit ñi jox leen cër nit ñi militant dañ koy jox cër parce que li ngeen soxla ci militant bi la nekk ah, bu doon yéen dong ak seen carte d'identité leen fal de mënu leen fal amul euh, un virgule du ngeen ko am un virgule du ngeen ko am léegi ñi tax ngeen di am quatre-vingt et quelques virgule léegi mënu leen respecté ñooñu ñooñu dañ leen di bind message ngeen gis ngeen ignoré appel mu sone ba nga yëg ne téléphone bee ngi sonné doo ko faale et pourtant président de la république ku mu woowoon même boo nekkoon communication nga coupé ko ko jël waaw léegi da ngay nekk communication gis benn Momadou mu ngi lay woo nga gis ne kii Momadou la nga bañ ko jël yow da nga gën Momadou boobu da nga gën paate boobu fii képp ku ñu woo téléphone yaa ngi gis sa téléphone mu ngi sonné boo gisul mu ngi sonné yaa ngi gis SMS ñëw na ne la Momadou c'est moi paate nga war ko mën a tontu même soulager ko mais euh, il faut arrêter de li am ci yenn dëkk africain yi gis ngeen ko ndaw yëpp a ngi fippu di mere seeni ay nguur lii rek a koy andi bëgguñu egg ak yéen foofu de di mere nguur bëgguñu egg ak yéen foofu mais il est temps nag ngeen xam loolu booy découragé nañu booy nanu bu ñu demee tey ba dee gënal leen dund ngeen xam ne mu ngi noonu booy demee ba mën a jël seen xaalis ne damay fay téeméeri junni dugg si gaal dee bu ma deewee baax na bu ma dundee baax na mu gënal leen toog seen réew ngeen xam ne a problème buñ naxante y' a problème. yaa problème ana ministre de la jeunesse lu tax ndaw ñi di dem ana formation yi même xaw ma lan dégg naa fay ñu leen sax seeni ay salaire te ministre de la jeunesse moo leen engagé woon ana budget buñ ko votel lu tax audit du am da ngay toog benn ministre de la république ñu teg ko dénk ko ay milliards mu jékki-jékki ñu dàq ko après mu dem toog fee di lekk xaalisam di gundaandaat am passeport diplomatique di ko dem fu mu neex si àdduna jamono jooju ñi tax ngeen am loolu ñoom ñu ngi si galère bi añ sax tey jii am na ñoo xam ne jaaruñ si añ il faut mu arrêter il faut mu arrêter il faut ngeen respecter sénégalais yi bu ngeen gisee nag ma toog fi jàkkaarlook yéen nag ngeen xam ne yéen ko def de parce que avertir nañ leen si suuf avertir leen avertir leen parce que après lay ñëw si kaw nga naan cest man junni nit dañuy ñëw Californie jàpp si nii Californie nii ñu may dégg association yi Europe Amérique ñëpp xoola barki dem bu benn femme ndeysaan Mozambique la nekk Mozambique sénégalaise dama bëgg ñibbi si jàppale ma Mozambique mu yaakaar ni man dañ ma nommé am ku nekk Maroc mu ngi may déglu xëy na peut-être nekk si ay jafe-jafe séisme bëgg na ñibbi Sénégal mënul am paas bu ko andiloo Sénégal ñooñ ñi dund galère boobu jamono jooju ñoom ñu ngi toog si ay milliards oto bu ñuy dawal ak cent millions nga am si cinq oto jamono jooju ki la fal mënul am paasu te ngéej ngeen gis loolu c'est normal mais yàlla ji da leen di rëbb de da leen di taal yéen ñëpp bëccëgu ndar ka am parce que trop c'est trop trop c'est dañu wante dëgg trop c'est trop il faut ngeen arrêter il faut ngeen respecter sénégalais delloo leen lu nu moom nekk leen si jàmm dinañ si ñëwaat mais tout sauf ministre de la jeunesse bi ñu am parce que jeunesse bi nee nañu suur nañ ko jeunesse bi nee ñu gisuñu njëriñam ministre de la jeunesse dinañ ñëwaat si ministre de la santé ak ministre de la famille mais tey moom ministre de la jeunesse amul njëriñ parce que bu amoon njëriñ du ñu gis chaque semaine des milliers de jeunes yuy jël gaal di dem du ñu gis chaque semaine des milliers ba dégg rek dégg naa am na si ñi doon dem bébé bébé ay jigéen démb démb ab barkaati démb it même chose semaine passée même chose mais y a problème et pourquoi ñu woo ministre de la jeunesse nekkoo lu tax say jeune di génn dëkk bi te la ñu dénk ndaw ñi ana xaalis bu ñu la jox koo fi jàppale nañ def audit mu génne kan ak kan la fi jàppale jàppalewul kenn jàppalewuñu kenn caga ji rek caga ji rek lañ jàppale kese amul demal ñoom genre soi-disant sinapeur rek kenn xamut ñooñu la ñuy jàppale yow na nga wut cité ngos sax man il est temps sax ma dem wuti cité ngos man il est temps ku am cité ngos bu baax na ma bal parce que gars yi boo amul cité ngos pour <laughs> non subhanallah dëgg laa leen wax ni de billahi gars yi boo amul site ngos jamono jii doo encaissé mille francs si ñoom na am cité def si ay ay ay ay ay ay ay ay ñax yi kenn xamul sax nañu dugg sa bureau rek gis ne que am nga cité lool rek la ñuy wër problème am na de bu ñu demee ba pour ngeen jàppale nit foog mu am cité ngos amul kuy dem di déposer dara pour jot du financement du dara ñu ngi gis sax benn Thérèse Faye Diouf moom jigéen la jàmbaar la moom mu ngi def liggéey bu am solo te nekkul ministre fonds bi ñu ko jox mu ngi jàppale jeunes yu bëri ci ay financement ci ay éleveur béykat ak fu ne mu ngi koy dugg pour di rey boppam ñooñu sax ñu ngi gis seen liggéey yàlla xam na ko ñooñu sax ñu ngi gis seen liggéey benn Thérèse Faye Diouf liggéeyam macha allah yaa ngi koy gis mu ngi dem fu ne ci Sénégal ak ba Europe di jàppale sénégalais yi financement même bu dee mënut financer ñëpp même bu dul mënul financer ñëpp waaw fu Thérèse Faye Diouf mën a demee FONGIP financer ay booy pikin booy Tëngéej booy Caaroy booy booy booy booy booy Médina ak feneen mais ministre de la jeunesse boobu lu mu def ministre de la jeunesse boobu lu mu def xanaa mu génne benn budget sax ñëw euh, euh, taxaw euh, ndaw ñi parce que ay milliards lañ ko votel mais milliards yooyu voté luñ leen ko pour ngeen di dem ñu leen di tuddee ay soirée rek ngeen di dem si soirée di naan way le ministre a décaissé fii cinquante millions parti parta il faut que ngeen arrêté fu ngeen jëlee xaalis boobu booy nekk si TikTok bi mënul leen leen taxaw opposition bi nga xamante ni ñoo nekk opposition xoolal nu seen booy nekkee si TikTok ak si réseaux sociaux yi nuñ leen jàppale yéen seen booy nekk si réseaux sociaux yi mënu leen ñoom dara dara dara dara dara yéen bu ngeen mënul booy si réseaux sociaux yi dara kan ngeen mënal dara il est temps nag Maxime Lopez il est temps gars yi kii c'est ça kaan bi coupe du monde beeg yooyu ñoom faa ay dara lañ jël yóbbu kan moo yóbbu ñoom faa ay dara <laughs> coupe du monde ak coupe leen ak leneen kan la kan la du ñoom la ay booy yoo xam ne musuñu toog <laughs> naan merci Macky Sall ñooñu la ñu tànn di yóbbu te xeex bi bu ñëwee ñan ñoo nekk si réseau di xeex ñan ñoo nekk si réseau yi di xeex di rey seen bopp militant yi la ñoo xam ne dañoo gis président Macky Sall rek bëgg ko te yàlla tax ñoo rey seen bopp le ministère de la jeunesse à payé beaucoup de formation quelle formation quelle formation qu'il a payé si centaine de milliards il a payé que des formations formation de vingt mille euh, yoo xam ne ay quota la yu ñu arrêté leen di ñu wax man dama yaakaaroon da nga ne ministre de la jeunesse taxawu na vingt jeunes yoo xam ne gis nañu ñu taxaw si télé wala rajo bi ne merci ministre de la jeunesse yaa tax tey ma am diplôme bi wala yaa tax tey ma egg fii arrêté leen di nekk suqu ay ministre de la jeunesse bu ñu eggee foofu nag ngeen xam lépp dëgg la ministre de la jeunesse en personne mu may dégg vidéo bi dina ko seetaan c'est un jeune comme man nee naa la 2011 ba muy jël bind Wade égal déception des jeunes maa jël pancarte boobu si moom man ak samay gàngoor dañoo yàgg xeex de ministre de la jeunesse boobu si boppam xam na ne liggéeyut arrêté di naan il a payé des quelle formation on attend un ministre de la jeunesse pour qu'il paye des formations formation lan fii formation yi bëri état day def quota c'est gratuite xanaa ñi si koñ yi sax association yi ñu ngi defaral ay nit formation gratuite vous restez là pour nekk ay répondeur automatique naan il a fait des formations ban formation on attend ministre de la jeunesse mu jàppale ndaw ñi nga naan formation xanaa waa Tëngéej la defaral formation da nga gis Fuuta defaral na leen da nga gis Tamba defaral na leen da nga gis Ziguinchor defaral na leen da nga nga dégg Fatick defaral na leen te c'est le ministre de la jeunesse on l'a donné des milliards ngeen toog des formations pour des jeunes quels jeunes xanaa les jeunes de son koñ xanaa jeunes yi nekk koñam la defaral formation formation wu lan affaire bi du affaire formation boo defee formation après nga am sa diplôme dem toog fee loolu dafa am njëriñ ñaata jeunes ñoo am seen formation te seen i licence ak seen diplôme toog fële di jaay café Touba bu toogee fii di wax réalité ngeen toog fii di andi ay détails la ñuy wax loo waay moom si boppam xam na ne xaw ma kan moo proposé président Macky Sall euh, euh, euh, excusez soppi na bi xaw ma la na dem c'est bon bloqué rek man moom je suis comme ça bloqué rek li may wax ku mu neexul nga dem jàpp seen TV waaw waaw Alex Campbell ministre de la jeunesse moom amul njëriñ merci yow jeune nga Alex yaa ngi si parti bi amul loo dajul ministre de la jeunesse dafa mës a ñëw am reconnaissance envers yow te li nga liggéey ministre de la jeunesse liggéeyu ko bu ñu toogee fi di wax dëgg ay nit taxaw fi naan il a donné des quelle formation ñun ñu ngi rey suñu bopp di xeex di rey suñu bopp ministre de la jeunesse yëguñu tinuñu Alex Campbell bi jàmbaar la fu ne mu ngi daw ah ngeen taxaw fi naan formation c'est ça qu'on ndaw ñi chaque semaine ñu ngi génn gaal gi di dem man bu ma gisoon gaal damay dem barke yonent Yàlla Muhammad gaal bu ma gisoon ma xam ne gaal bi du ma si ma dem gàddaay dem toll nañu foofu toll nañu foofu gàddaay dem bàyyi réew mi ak ministre de la jeunesse beeg ñooñu ak ay ak seeni soi-disant nañ leen bàyyi réew mi ñu dem suñu yoon ñu xool élection bu ñëwee ku leen di votel il faut ñu arrêté faaw ñu xool réew mi jàppale ndaw ñi surtout ndaw ñi surtout ndaw ñi il faut ngeen xool ah jàppale gaay ah mais taxaw fii lu ñu mën rek làmb am ñi ñëw xoju ah affaire yi du loolu ay xoju dem ci làmb ji ay ñàkk fayda ñu nekkuñ si yooyu ministre de la république dañ la fal ah, pour nga mën a jàppale rawatina ndaw ñi mais ministre de la jeunesse bu échoué ba ñëpp xam nañ ni échoué na ngeen toog fii di naan ay jàppale na de formation parti parta ñun lijjantiwuñu sax ministre de la jeunesse yéen xam ngeen loolu sax si ñun lijjantiwuñ ko nawloowuñ ko parce que mënuñu toog tey fal ko pour mu jàppale ndaw ñi ndaw ñi ñoo gën a torox ci Sénégal ndaw ñi ñoo gën a torox ci Sénégal Sénégal ñëpp a ngi bég ba mu des ndaw ñi ñëpp a ngi kontaan maire yeeg paa ñëpp a ngi bég ndaw ñi rek ñoo bégul te ministre bi ñu fal c'est un ministre ndaw jeune la xam na luy problème jeune yi xam na luy problème jeunes yi sëgëm jeune parti bi la mun te jàppale un centime waxuma la ak yeneen jeune nit ñi ñu ñuy jàppale ñun xam nañ leen. il est temps nag ñu wax de il est temps ñu wax te dama ne fii ñu jëm nii ci ay élection lu ñu jëm si six mois ak mois dama ne foog ñu teg dëgg bi de ñun kenn moomuñu kenn kenn kenn kenn kenn moomuñu fu nu neex la ñuy dem farina parce que dama ne lii ñu nekkee nii nga xam ne mooy nguur kenn moomuñu mën nañu toog fii dem tey tey tey live ne dañuy jàppale borom quincaillerie bi sénégalais yi bëri ñëw ànd ak ñun si lu tax ñu jàppale borom kenkayri bi dañ leen di jox ay raison nag dañ leen di jox ay raison waaw parce que ku la yëgul tinu la lu tax nga koy votel lu tax ngay topp si moom toog nga ñooñu falu nañu lan nga gis ñoom rek ñoo yore seen i kat kat di dawal ñoom rek ngay gis ay garde corps wër leen yow boo leen falee ba pare pour ñu pour nga jege leen sax problème la boo leen jegee garde corps yi ba max la te xool leen première dame image rek wane na ko barki dem ba Amérique am na benn waaye bu ñëw jege ko garde corps bi di ko ba max première dame ba max garde corps bi dafa bëgg woon ni que man bu ma nekkee première dame ñii ñoo tax loolu mooy dëgg lii mooy dëgg première dame wane na exemple bi mu ngi ànd ak garde corps waajoo ji ñëw yorul yépp yorul bant yuuxuwul en ce moment am na ñu taxaw foofu di yuuxu di mer kooku merul bàyyi yitteem yépp ak time is money Amérique nu temps chéré magum jëmm bàyyi lépp ñëw gis première dame di leen ñu ngi leen di ndamoo di selfie garde corps amoo noo def lu dul di ko bëmmax première dame it am fulla ne lu tax ngay bëmmax ki <laughs> mais première dame nit la pour lan nga koy bëmmax yàlla kawel doomu aadama yow nga suufeel doomu aadama loolu si ñàkk fayda la bokk dal na ma semaine passée euh, méridien président ma ñëw taxaw garde corps bi naan ay kit dégage ici kit lié fii ma ne ko man munoo ma génnee fii lu tax je dégage ici dama nekk terroriste wala dama nekk nit kuy rey wala leneen am na ñoo xam ne ñooy andil noon président de la république surtout garde corps yi ki kenn xamul c'est vrai seen liggéey ngeen di def mais il faut ngeen comprendre tamit président bi bu nekkee président ñun a tax bu doon ñun du mën a nekk président ba ngeen di nekk wetam di nekk ay garde corps am il faut ngeen xam loolu président bi gënuñu si yàlla <laughs> jabaru président gënuñu si yàlla ministre bi gënuñu si yàlla dañu ànd ñun ñëpp nekk ay doomu aadama ñu nar liggéey liggéey bu jotee président bi day wàcc ci ñun def ay carax tànku nee nag ñëw ñu ànd ak moom liggéey rey suñu bopp convaincre ay nit waa léegi kooku bu faloo nit kooku tax moom mu falu bu ñëwee jege ko nga bëmmax pour lan doyadal nit ki ngente ko fan bu yoon il faut ngeen arrêté de il faut ngeen arrêté il faut ngeen xam ne nag mbir yi dafa war a changé fii yàlla ji sax bu tax woon xoola nit ñi dañuy daw ñëw ci yàlla ji yàlla ji ne ñëw leen maa leen sàq ñëw leen lu tax ngeen di bëmbax nit ki na sori yàlla te yàlla bind la président bi lu tax mu nekk président nit ñi ñun la militant yi léegi militant yi ñëw jege président ngeen bëmbax parfois sax gars yi door ay pompe à gaz ak kenn xamul ngeen teg ko fan loolu day décourager loo nit loolu day décourager loo nit parce que ñoom ay mbindeef la ñu comme ñun man amul ministre bu ma gën amul directeur bu ma gën amul président bu ma gën ku nangu nag ñoom ñu gën la sa problème la man amul mbindeef bu ma gën ci kaw suuf kenn ma gën te ñu wax ko ci alxuraan mooy gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam kooku laa jàpp moom a gën à part moom mbindeef ci kaw suuf gënuma sama papa ak sama yaay sax gënuñu <laughs> respect naa leen nag ñoo ma andi si duniyaa mais gënuñu ma parce que yàlla newul ñoo a gën li yàlla wax kan moo la gën mooy gën gi mbindeef sallallahu alayhi wa sallam loolu ngay déggal mais jege ministre ñu bëmmax la jege directeur ñu bëmmax la directeur nga woo ko du jël ministre nga woo ko du jël jamono jooju càgg leen bind message ñu décroché waaw ah, waaw caaga bu leen bind message ñu décroche yow amal site tengos bu baax rek foo leen bindee susu kuku ñu ne la wii bébé mais yow boo nekkee xeexkat faayetkat ki yow mii di wut ay parrainage yow mii di rey sa bopp xoola reyal sa bopp ba ñoom ñu falu bindal bonjour monsieur le ministre mu vi ko ignoré la billahi bëri na si parti bi xam ngeen lu mu leen wax dëgg rek te bu ngeen nekkee loolu ngeen nekk tey ñan ñoo tax booy si parti bi kon nag il temps ngeen dellu ginnaaw xool rétroviseur bi xam ne bu du ñii du ngeen fal ngeen respecté ñooñu jox leen cër xoola <laughs> lu ñu naan uude nag nu mu la gisee noonu la lay ñawale yow mi militant bi it boo amul fulla sa bopp ministre bi du la jox fulla waaw yow mi militant bi boo amul fulla ministre bi du la jox fulla boo amul fayda directeur bi du la jox fayda fayda ak fulla yaa koy wutal sa bopp bul lijjanti xaalis bu mu lay jox ba tax doo ko wax dëgg bi luy xaalis da nga mës a gis ministre buy dee ñu suulaale ko ak vingt mille amut directeur buy dee fii ñaata directeur fi dee ñaata ministre fi dee da ngeen mës a dem ci bàmmeel ba ñu ne vingt mille yi directeur bee ko moomoon mu ngi koy yóbbaale fii kenn amul dara kenn amul dara man du ma topp nit ndax dërëm bi nga may jox tax du ma la wax dëgg de boo amee say dërëm dëgg yi tax ma la ko yàq nga dem da ngay mer téyel sa dërëm boo ma ko joxut yàlla suñu borom jaarale ko si keneen it kooku jox ma waaw man xam nga kan laa ñee ku ma gën a jege yàlla mais du ay ministre bi am na oto patati patata ñu nekkuñ si yooyu ñu nekkuñ si yooyu on travaille ensemble on gagne ensemble on on on on séddoo ensemble it laa mën a wax yow on travaille ensemble on gagne ensemble après boo amee yow tu séddoo ak ton papa yaay ta jabar ta sa sa sa gel loolu dafa jeex de loolu dafa jeex il faut ngeen delloo nit ñi respect. fii ñu jëm dafa tardé fii ñu jëm nii ak a deux mille vingt quatre ak a deux mille vingt quatre dans six mois ak a tar ay moo neexoon tey nguur exemple ngeen perton ko <laughs> Kaliphone mën na dem marché Gueule Tapée naan soble soble soble di jaay ku ne dorom naan kale ngi nii mais doo fi gis directeur boo sañ a taxaw naa day jaay soble doo gis ministre bu taxaw naan day jaay soble. donc nag du ngeen conserver loolu jàppale ñi war a mën a tax ngeen gañewaat mais booy ñëpp découragé ñëpp farañee ñëpp découragé mere wuñu président Macky Sall parce que gis nañu mu ngi liggéey réew mi mais ñan la ñu mere soi-disant ministre yu liggéeyu ñaari salaamaaleykum soi-disant directeur yu tekkiwu dara man am na ministre yoo xam ne bu ñu dajee permanence may bëgg jël sama xaalis may leen ñu paas militants yi nekk permanence mënuñu si ñoom dix mille francs dix mille ñaata yoon ay militant ñëw permanence toog gàttandu wax ak yéen yuuxu tàcc bu ñuy ñibbi dañuy am problème paas te jamono jooju ministre bi yéen a ngi amee milliard loolu dafa ñaaw dafa ruslu dafa ñaaw dafa ruslu il ngeen liggéey xam ne dañ leen dénk réew mi pour ngeen liggéey président bi moom mu ngi noonu Kali Arep waaye yan ministre la booy mere Ibrahima Diagne aw ma temps di la tontuwaay xam nga yan ministre la booy may euh, mere ñaata ministre de la république a fi nekk fii buñ ci bégee si benn ministre ñett ministre lay doon ngay toog fi naan yan ministre la la booy mere yow mere woo ministre yi ah <laughs> ministre Jakarta <laughs> Alex Campbell ah <laughs> non mais attends ba xam nga yan lañ mere boo bëggee dégg-dégg xaw ma ñaata ministre lañ am xaw ma 24 xaw ma 36 si ñett ministre la booy kontaan bu dee bëgg nga dégg-dégg yeneen ministre yëpp amuñ njëriñ. bu dee bëgg nga dégg dëgg waaw waaw excusez-moi merci ok Ousseynou Lo Kali Macky c'est fini waaw Macky c'est fini Macky si bappam moom la njëkk wax ne moom c'est fini moom nee na dematul mais on parle pour ñi bëgg a remplacer Macky waaw il faut ñu am nu ñu doxalee parce que ñi mer bëri nañu et nag damay bañ le réveil mu nekk réveil bu brutal waaw loolu laay bañ waaw loolu laay bañ quoi réveil bi nekk réveil bu brutal loolu rek laay bañ parce que ñun ñu ngi si réseau yi ñun ñu ngi dox fu ne ñun ñu ngi gis lu ne xëy na ñoom duñ ko gis duñ fa dox duñu egg parce que ñoom fu ñu toog bureau climatisé euh, yenn seen ñett géwél ñeent ñu ngi toog foofu di la naan way euh, tu es champion euh, gars yow la ñu bëgg fekk si biir terrain bi dara sagam ñun ñoo bégut waxuma laa ñeneen ñi waaw ñun ñun ñoo ñun ñun ñun waaw Abdou bu frère moom xam na gis nga nee na le réveil sera brutal dëgg rek lii ñu obtenir buñ ci jógul le réveil sera brutal waaw ministre neex na lool nekk directeur neex na lool mais day fekk ngeen conserver pouvoir bi bu ngeen xoolee ba ñàkk pouvoir bi ngeen xam lépp dëgg la ana ñi ñàkkoon pouvoir bi si si si si temps Ablaye Wade ana Farba ba Senghor Farba Senghor toogu leen fii ñu ne la Ouest Foire ñu ngi koy expulsé ñu ngi koy génne camion gendarmerie toog di génne bagage yi gisuleen leen misaal boobu exemple dong de Farba Senghor nga xam ne nekkoon ministre des transports bi may dawalal benn kii taxi oto la jëloon 4x4 ko may ko may ko may ko may ko kooku mais ba mu perte nguur gi amatul sax oto moom en personne moom en personne amatul oto nguur boo si nekkee day neex lool mais bu ngeen ko perte ngeen xam lépp dëgg la tey ministre de la jeunesse bii di nekk ministre de la jeunesse di jaay ŋaami rëy bu ñu pertoon nguur gi mooy njëkk torox waaw mooy njëkk torox loo sàcc sàccit loo am alal alal day jeex parce que loo xam ne da nga ko denc fenn di tëbb di tëbb di tëbb day jeex waaw waaw donc nag il faut <laughs> ngeen respecter ñu. jox ñu cër xam luñ leen waxut